kanyi jemlin jemlin ku jem yala bi mom dinala jappale kanyi jemlin jemlin ku jem yala bi mom dinala jappale adonan khayure ku jiki da di soti ben ben nyar nyar mole yo bonyet kanyi nangin jemlin anyị na ngende ñu ngi leen di nuyu ñëwaat ci seen émission jotaay ak boroom tawféex tey ñu ñëwoon ci pàcc bi nga xam ni dafay wax ci bépp feebar boo xam dafay dal nit ki ci suufam bu ñëw ci suufam mooy ñu ngi wax anus bi ak rectum bi ak butit bu mag bi muy solom su mag si muy kolon bi bépp feebar bu koy rek dinañ ci waxtaan benn par benn waaye benn bu ne nag dañ émission à part waxtaan ci bi ci jiitu tey ñi ngi waxtaan ci li nga xam moom wax hémorroïde les affections anorectales mooy feebar yi nga xam ni bokk na ci dal nit ki ci hémorroïde ku dégg xam na ci lenn li waaye tey dañ ci bëggoon ci tàmbali leeral ni lan mooy hémorroïde d'abord baat bi dafa jar leeral baatu hémorroïde boo ko déggee cër la boo xam ne dafa nekk ci doomu aadama bi bokk ci butit bu mag bi nga xam moom la wax colon bi colon bi li ko constitué mooy kakam bi colon ascendant transverse descendant en sigmoïde rectum anus ci biir rectum bi ak ci anus bi fi xam ne moom la ñuy wax kanaal anal bi kanaan anaan moom la olof di wax ruq nun ko ci la hémorroïde yi di nekk ak lan ci anus bi muy suuf bi su ma nee suuf bi nag muy anus bi olof amal na ko tur su ma nee rectum olof amal na ko tur waaye su ma waxee tur bi ci olof dina am ñoo xam ni dina leen heurter wala mu jane leen moo tax soo leen déggee ma ne anus suuf rectum biir suuf bi nga xam ne loolu laa jublu waaye nag am na tur ci wolof boo xam ne mënoon nañ koo wax kon kanaan anaal boobu nag di ruq nunk bi gis nga wax naa ruq nunk waaye dérangé wul kenn parce que nit ñi xamuñu ko mais bu doon lu ñu tàmm mii na wax rek ñu ñaawal ko ruq nunk boobu di canal anal bi moom dafa am liggéey boo xam ne moom la war a dox ci suuf nit ki ndax nit ki suuf gi muy boutique bu mag bi muy colon bi suuf gi dafa war a tëju ràpp tëju ba benn cabinet du génn benn dem àll du génn dara du siit dara du toq dara du seeb benn ngelaw du génn maanaam dafa war a tëju canal anal boobu nag di ruq nunku boobu liggéeyam bokk na ci moom loolu tëj suuf gi ba mu tëju ci ndimbalu li nga xam ne moom la ñuy wax ay inspecteur yoo xam ne muy inspecteur interne bi ak li ñuy wax inspecteur externe bi ñoo xam ne ñoom ñooy nooju maanaam xaaral ci misaal buñ jëloon butit bu mag bi di colon bi moo nekk nii ci misal butit bu mag bi di kolo moo ne nii lii appendicite bi li moy kakam bi fi mom moy fi nga xam fa la li nga xam ne bi di demee ci kakam bi pour réabsorption beeg yoy loolu benen waxtan la ci benen émission li moy colon ascendant bi traversible descendant bi en sigmoïde baa ngi rectum baa anus baa ngi ñun tay li lañ soxla manam rectum bi ak anus bi kon mom lay indi fi li lay def fi pour nit ñi xam ci cër boobu rek la ñuy liggéey maanaam pàcc bu ne buñ ci liggéey dañ koy génne moom kese waxtaan ci rectum bi moo nekk nii nii la mel lii mooy sigmoïde bi mais lii mooy rectum bi rectum bi dafa dafa am ay cër yu ko yoo xam ne ñoo ko ànd bokk fii moom la tubaab di wax ampoule rectale olof di ko wax nunku runku ampoule rectale di nunku runku bi moom mooy dajale kabine yi ba nit ki am aajo mu ubbi kanaal anaal bi muy ruq nunku bi doog a génn kabine yi ci suuf gi canal anaal bii nag laa leen wax fii lii mooy kanaal anaal bi lii kanaal anaal bii moom dafa war di tëju rap barasu, rasu tëju boobu muy tëju ba dafa am ñoo xam ne ñoo koy defal mooy xam nga li nga xam ne moom la ñuy wax ay sphincter sphincter yi am na ñaar am na lu ñuy wax sphincter interne ak lu ñuy wax sphincter externe maanaam ñu tàmbali ci sphincter bi nga xam ni mooy interne bi moo nekk nii kii sphincter interne bi la moo nekk nii moo nekk nii moom beneen sphincter bi nga xam ne moom la ñuy externe bi nekk nii moom laa def en mooy bu féetewoo biti bu verte bi mooy bu féetewoo biir bi externe bi ak interne bi ñoom ñooy nooju ngir tëj suuf gi mu tëju ràpp fii tëju ràpp ba dara du génn wante bu tëjoo dafa am benn jafe-jafe boo xam ne dafay am bu tëjoo moom extincteur bañ a ràpp dafa am lu tolloo 4 millimètres boo xam ne dafay des ci suuf bi loo xam ne du tëju 4 millimètres yooyu war a tëju nag ci la suñu borom nag doxalee indi li nga xam ne cër bu ñu wax hémorroïde olof di ko wax nunku hémorroïde yooyu la suñu borom defar ñu ñëw li nga xam ne moo desee tëju ràpp ndax tëju na mais dafa deful ràpp loolu la hémorroïde yi ñëw di di doxal moo dafa am hémorroïde ñu wax hémorroïde interne moy hémorroïde yi nga xam ñoo ne ci biir canal anal bi mooy émeri nekk ci ruq nunk bi gis nga nunk bi ruq ba muy tëddee ci moo tax mu tudd ruq nunk ñoom ñooy nekk fii lii mooy hémorroïde interne yi am yeneen hémorroïde ñuy wax hémorroïde externe moom moo nekk ni mooy ne ci suuf bi ci anus bi ci anus bi yii mooy hémorroïde externe moom laa def en rouge nekk ci anus bi yii mooy yu vert yi mooy interne yi maanaam hémorroïde boo ko doon xool ci misaal moom dafa xaw a mel ni lu nuroog euh, genre déeg la lakk la ab déeg la ñu bëri sax dañoo foog ni hémorroïde yi ñoom cër la yoo xam ne ay veine la fekk du veine parce que veine moom liggéeyam mooy tëj li nga xam ni mooy delloo deret bi artères yi xam ne ñoom ñooy indi deret bi nunq yooyu nag di hémorroïde dafa nekk xaatu déeg boo xam ne lu mel ni manque la boo xam ne ndox mi deret bi dafay taa bu fa taayee moom mooy tëj fii te ñoom dañu ma xaw a mel ni ay lu mel ni cab bi raisin maanaam ci misaal nii la hémorroïde bi di mel day mel ni comme ay cab rasin nii lay def am ci ñett ba ñeenti cab ci wàllu bu nekk hémorroïde nii lay mel waaye boo jëloon benn hémorroïde rek moom day mel ni déeg mu taan ni deret bi mooy nekk ci biir lii di artère bi fi dugal deret bi lii di veine bi fi dugal deret bi maanaam lii day nekk deret bi moo ci solu hémorroïde boo ko doon xool ci misaal ni la mel ñu ba dañ fekk nu veine la mais du veine ab lak la maanaam déegub deret la ñoom nag ñoom ñooy dajaloo fii bu dee yu interne dafay sol fa deret pour mën a fat canal anaal bi muy ruq nungu ba dara du mën a seeb yi ci suuf moom mu rasu pour tëj ci suuf ba dara du mën a du mën a génn loolu la ñuy wax hémorroïde bu fekkee nag nit ki dafa dem ba benn jamono nag cër woowu feebar muy hémorroïde bi nga dégg nit ñi ne dafa amee hémorroïde ndax olof mooy def cër ba mu feebarle lay tuddee feebar bi moo tax nga dégg dama amee tànk dama amee loxo dama amee bopp loolu ko ne am na ko mais daf lay bëgg wax ni lu tur jë cër yooyu mu la wax yooyu la feebarle fii nag olof nag moom hémorroïde ñi ngi ko daan wax piccub kajoor ñenn yi ko wax jàngoroy kajoor waaye lu mën am rek mooy nunq yi di hémorroïde yi ñoom ñoo febar kep koo xam nak nag da nga am mandarga yi nga xam ne moo tax ñu ne hémorroïde la maanaam yan mandarga mooy tax nit ki bu gisee ci boppam xam ne am yan la ci lañ bëgg jublis benn nit ki bu fekkee ne dafa gis ni moom buy dem cabinet dafay gis traite mo xam ci tàmbali bi la

ndax ñom ñoo retour sanguin bi artères yi yor li nga xamni moy mooy bu xonq bi lolu moy li nga xamni mom lañuy wax ci artères waye waaye gisoo nit ki bu fekke hémorroïde da fay xonq té nee la veine yu rouge deret bu ñuul lay yor sauf ci li ñuy wax si microcirculation moy digënta xol bi ak xëtër bi fa ñuy joxantee deret mom fofu artères yi ñoo yor deret bu ñul bi veine yor deret bu bu xonq bi waye fi nit ki fay gis ni da fay xonq teg ci bu demee dus ba noppi gis muy metti suuf gi wala muy saf wala muy jam wala muy tàng wala muy xasan loolu ay mandarga hémorroïde la wala sax mu gis ni moom kat bu demee dus ba pare suuf gi du dellu dafay des ci biti am na ñoo xam sax ñoom ñoo koy puusal seen bopp loolu mandarga la ci yoo xam ni ko bu gisee xam ne dafa am li nga xam ne moom la ñuy wax hémo hémorroïde bu ñu jàllee nag ci signes yooyu am na nag xam nit ki war na mën def ba hémorroïde du ko dal wala boog sax ñu jiital lan mooy li tax nit ki hémorroïde di ko gaaw a dal maanaam lan mooy faral di joxe hémorroïde hémorroïde li faral di joxe bari na mais li ci ëpp dañ ne la problème mu constipation la serré nit xam dafa am jafe-jafe dem cabinet nga xam ni da ngay gis ñoo xam ni ka dem cabinet dañuy ya dañuy dem ci cabinet nalu ba sonn cabinet bi jafee génn ñu am na ci ñoo xam dañuy dem ba dañuy jël seen baaraam di génn cabinet ndax loolu ci ëpp ci ampoule rectale bi xam nga colon bi fii mi ngi fii ci ampoule rectale bi fii da cabinet yi ni ñu fi dajaloo dafa dem ba dëgër fa moo tax du mën a génn moo tax ñu obligé di génne ak seen loxo xeetu seera boobu mën a indi ki hémorroïde am na koo xam ne sax moom dana dem cabinet ci saasi dina am lu génn mais day yëg ne am na lu des lu des na fa lay toog di naalu lu yàgg pour génne ko mu jafe ci moom jafe-jafe mu am pour génne ko mooy dem ba bu paree léegi dafay teeñ bu ko defee suuf gi du dellu bu demee toog ci pression boobu ak poids bi kii na ko mu gën a indi li nga xam ne moom mooy hémorroïde kon euh, yooyu mooy ci ëpp yi nga xam ni mooy joxe hémorroïde wala tam jigéen joo xam ne dafa nekk jigéenu wérul hémorroïde dana ko yomb ndax problème hormone yi nga xam ne muy progestérone bi xam ni euh, dafay accentué wu wala sax buy am doom di wasin puus bu muy puus cabinet yi bu muy puus muy puus pour mën a wasin mën na ko indil wala sax euh, bu tolloo ci juróom-ñetti weer juróom-ñeenti weer doom ji poids bi nga xam dafay compressé rectum bi moom it mën na ko indil jafe-jafe ba mu am hémorroïde wala tam koo xam dafa am yaram ku pata obésité day indi li nga xam ne mooy hémorroïde wala koo xam tam biiram dafay daw lu bari tam day indi hémorroïde du seere rek donte seere moo ci ëpp kon nga gis ni lu ci ëpp raal mooy ñi am problème circulatoire wala ñu am problème seere la hémorroïde di gën di di gën di yab yooyu mooy yi nga xam ne mooy yi faral di jox nit ki hémorroïde léegi nag képp koo xam da nga am hémorroïde laata nga koy faj na nga war a def ba du la sonal wala sax faj nga ko ba mu wér waaye bëggatoo ko am wala sax amoo ko te buggoo ko am nan ngay def li jiitu mooy nit ki dafa war a fexe nag ba lekkam mu xool ko mu fexe ba du seere mu fexe ba lekk-lekk yoo xam day bëri fibre nga xam da koy dimbali ci li nga xam ne mooy transit bi ba nga xam ni colon bii muy butit bu mag bi dana mën jël kabine yi di ko yóbbu normalement te du ci am benn benn jafe-jafe kon teg ci mu war di naan ndox lu bari di yëngatu lu bari waaye teg tamit euh, saa yu yëgee aajo dem cabinet na dem cabinet saa yu yëgee aajo dem cabinet bu mu ko fa téye ndax bu ko téye day perte lu ñuy wax bi bu ko defee cabinet dañuy dajaloo ci emploi total mën na ko indil problème ba nga xam ne dina ko indil jafe-jafe kon bu weesoo loolu naan ndox mi yëngatu yi di lekk-lekk yoo xam ni dana baax ci nit ba nga xam ni moom dana tax du seere yooyu bu ko nit ki defee dana ko dimbali ba du am li nga xam ni moom mooy hémorroïde bi moom kon tey ci wàllu baatin ñi nga leen jox koo xamante ni dafa gis ne dafa am mbokkam boo xam ni da koo réer wala mbokkam boo xam ne da koo seet gisutu ko wala moo xam dafa fàq moo xam dafa dem gisutu ko wala mu tikki tëw a ñëw kooku lu ñu koy wax mooy na def lii na bind saar bi nga xam ne mooy sóoratu taxaasuru maa ngi aleyku taxaasuru ba mu jeex miim bu mu jot mu ubbi ko ba mu yaatu dugal ci turu ki nga xam ni moom lay seet wala moom la bëgg mu ñibbisi jël turu def ko ci suuf ëw ko dem def ko ci néeg ba mu daan fanaan wala kër ga mu mujjee jóge mu gas ko suul ko fa ci kàttuñu yàlla dana dellusiwaat ba ci kër googu euh, ci kàttuñu yàlla bu fekkee ni mi ngi dund maanaam sóoru takaaso rek lay bind mim bu mu jot mu bind ci ki muy seet ci kaw jël turu bind ko ci suuf ëw ko téere bu mu nee am morso yi kenn ci yére bu mu waa ji mosa sol wala ka seet mu ëwee ko ko gas ba mu xóot mu suul ko ci ci bërëb ba ci kër ga wala ci néeg ba ba mu doon dëkk di fa ne incha allah ci kàttanu yàlla suñu borom dina gindiwaat ba mu egsiwaat ci seen loxo bu fekkee ni mi ngi mi ngi dund loolu lañu ñu woon seen émission yóbbal tawfeex ci émission jotaay ak borom tawfeex di leen jox daje ci beneen waxtaan asalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh gaa jéem leen jéem leen Temele bumbi mamdina la japele Adonan khayure kujiki la disoti Bene bene nyar nyar mole yo bunyet Kanyi nangin jem Kanyi nangin jem